as lañu boole ñaari ruux yi àdduna du woon tukki te gisew ñu ba noppi eh benn palaas mu bon sama yi nekkul de moo te mënul ñëw ba léegi jana teeg bànneex di ma kañ lay doon ak nu may def ba gis la daan xëy lu gën neex du kii du kale nga newoon si yoon nu may def ba gis la chargé laa woon CV bi dem na fu ne ndegtele yoo du ma liggéey si ñoom du janeer dañ ma la woon mbégtele yoo seedi bi dañ na bu dee yaa jur samay doom yu sundur ak xamoon naa ni daanu daje te dundu lem xamoon naa ni bés bu ñu dajee mooy dàq mburook leem duma la fen si ni yowee ñu ànd dem feneen jëndeewu la kenn du kenn sañoon ku man dara ci ñun te ñun soxlawuñ nga tooñ ma ma lay baaloo wax ma keñ lay delloo bisa ngi tambambaaloo soo ma mere ma waaru bàyyi leen ñu wax lu leen ne gisaguma lu ñu war a tere dem li ma yëg kajul si du jeex kee wax bu mu yàq kere dem danga gën foor xetu boon ci man tat lay def su ma laa déggee man nga sa boor man nga li nga doon si ma bu dul yow sama tool kenn du ko ñegee bokk yow kër di foo di ree di kontaan mooy sama yéene si yow mu antuñu muur ma ma wuusuñu njaboot je t'aime mon cœur kenn duñu ree léegi ndeysaan dinaa la ni mu waree ba digg jaraaboot ma mu wàcci maxeen L'autour, moi, ma meilleure amie. Quand je parle de toi, j'ai des larmes aux yeux. Je et tu es toute ma vie. Youssou Ndour ak